Thank you. waa Idi fay nañ la. ginnaaw ma sant yàlla di julli ci yonent bi di sant samay waajur bu baax a baax di ñaanal sama maam bu góor fu mu tëdd yàlla na ko gënal fu mu jógee ak mbooloo jullit yu ko fa fekk ak ñu fa fekk. di ñaanal sama meer yi nekk ci gaal yàlla nañ suñu morom yàlla bàyyi leen fi xam nga ba ñu mun leen taral ak mbooloo bépp julli ci daraja Nabi Mustafa waaw di nuyu waa 24 waa parcelle 1 ba 26 rawatina waa 24 bu ma dëkk nii. waaw maa leen di bu baax a baax ak waa bi ak waa PFC ak waa Eldorado ak waa bi yëpp waaw maa ngi jégalu bi waa bi maa leen di gërëm baax a baax di jégalu nag ci waa dëkkandoo yi leen di bu baax a baax ci sonal bu ñu leen sonal ni ak dérangement bi maa leen di tuub di leen jégalu bu baax a baax ndaxte dëkkandoo ak la waaw. diggante ak armée nan nga ko waajee combat bi yàgg na trop. waaw combat bi yàgg na ñun ay xale lañu. mosuñoo nelaw benn yoon ñu benn yoon parce que xam nañ ne yàgg yàgg làmb yi dina ëllëg parce que ñun làmb mooy suñu métier. waaw waaw yi ni ñuy xëyee dem ci bureau yi ñun noonu la ñuy xëyee dem ci géej gi tamit di entraîner. waaw loolu tamit dañuy dañuy dañoo nekkoon si liggéey bi daal di entraîner daal waaw nelawuñu benn yoon waaj nañ ko fépp pare nañ ko fépp waaw. na ko fi wax jee waaw comme lu ma la wax jooju moo fi nekkaat ba tey parce que man ndaw laa ndaw boo xam ne dama gëm sama bopp gars yi yaakaar ci man waa Casamance waa Boulouk 22 villages yi rawatina waa Parcelles 1 ba 26 waa 24 dañoo yaakaar ci man. loo tax man xale laa su ma ñëwee damay def fulla ak jom fulla ak jom lañ ma xamee yàlla nag moom moom ndam mais lépp luy waral ci géew dama koy def ba mat sëkk. waaw li may neex si fecc si ambiance si bëri si waaw lépp loo koy def nee na xam nga loo am si combat bi ñëw tëdd. xam nga dama lay wax ñëwoon nga fii ma wala armée mu ngéwél ndox bu taax la ndox bu taax du la fekk si moom yaa koy fecc fekki nga pàcce pàcceexee ko te war naa dama koy fekki ma pàcceexee pàcceexee ko. waaw waaw. nga ne. combat bi seen benn si combat bi entraîné nañ ci lépp combat bi est-ce que du ma ko dóor mu daanu sax ay waa maanaam Idy lamb ji dañoo jaral lamb ji lamb ji dañoo jaral amul benn combat bu ma jaral lu dul combat bi combat bi damaa jaral damaa jaral te dëgg dëgg ko gën dama yaakaar ne lu mu dijéere mais bu ñu newante rukkum moo xam ne doolee góor du ci ngëmba gars yi nee na moom fu mu ko mën a yóbbu yóbbu ko dëgg la parce ma wax naa la samay morom jëluñu ma bu may samay morom jëlulee moom mu nekk fi nag parce que man du ma sommé tamit damay comme lu ma la wax rek du ma liggéey parce que sama métier bu ma gars jëlu ma dama koy jël ma bëre ma faxas ko ba pare xoolis leneen quoi incha allah. waaw Fallou Ndiaye ñoo ngi koy ñaanal di ko ñaanal wér di ko ñaanal gudd fan ak barke ak sutura parce que sonn na ci ñun tamit sonn nañ ci. mais di ko ñaanal jour ba yàlla daal euh, bu mu ñu xeeb daal yàlla bu mu ñu xeeb te yàlla ñu yàlla may ndam si kattan si kattan yàlla ci kaw armée bu ngéwél waaw di woo mobilisation maa ngi ne gars yëpp ñëw nañ ñëw jàpp ci arène national la ñu teel a ñëw gars yi togg ci ceebu ndam yi kattan yàlla ñu dem jàpp gan gi def fulaak fayda yàlla may na ndam ñi Hercule ñu ko boot ñoo bëri Hercule Hercule Hercule ñu ko boot ñoo bëri xam nga bu la nee 22 villages 22 waa Casamance yëpp xam nga maa leen di woo di leen ñaan ñu ñaanal seen doom si paam si jaam ñoom ne ciirul di sabari juddoo alea xoolul juddoo xoolul kati Casamance ñoom ne woow juddoo alea xoolul ita ne gajo mi nogor nang balage wala di ëmb seen di kane champion ete Casamance parce que gëngëm yaay taate fula yaay taate joma yaay taate karamben rek waaw sama kaddu bu mujj maa ngi woo gaa yëpp di woo waa parcelle 1 ba di woo sama mbokku Joola waa Ale Casa waaw di gërëm gaa yu jàpp si combat bi ku jàpp si combat maa lay woo bu baax a baax maa ngi gërëm abu benn sëmbu abu benn sëmbu jàpp na ci combat bu baax a baax di gërëm Zal Ampagaay di gërëm ñoom Dame Sène ñoom Blende waa Agri Grand ñoom Bétail ñoom gaa yëpp sama palu ba maa ngi woo gars yëpp nañ ñëw taxaw di gërëm a Allez di ne gars yi nañ ñëw ci combat bi di gërëm Abdou Niassi di gërëm dafa na itam maa ngi koy ñaanal ndam parce que bokk bis bi si kattanu yàlla incha allah damay am ndam ma wàllu ko tamit mu am ndam incha allah